bokkeen tax na ci yaatal vision da leen ak jàmm ci xibaar bokk na ci nag li ci gën a fës Pape Alé Niang journaliste bi dikkaat na bu baax ci li nga xamante ne bi nag moo di waa manifeste waa bitim réew manifestation yi nga xamante ne bi ñu ngi koy amal foofu foofule ca bitim réew ñu nemmeeku ko nag fan yi yëpp nag mu di fa amee waaye nag la ca gën a tee neex nag bokk na ci li nga xamante ne bi moo di dem Sénégal yi nga xamee ne ña nga foofule ca bitim réew taxawaay bi nga xamante ne bi am nan ko te it nee na c'est la première fois ñu daal di dem nag ca buntu CPI lii nag di cour pénal international ngir daal di vilipaane li nga xamante ne bii moo di yoreenu Macky Sall ci biir réew mi ci yoreen woo xamante ne bii wu salte la tax nag doomi sénégalais yi daal di jóg dem ca foofee ca cour pénal daal di jébaandi Macky Sall foofee ndaxte kat yoreen nga xamante ne bii yore na ko réew mi ak ay doomi Sénégal yoo xamante ne bii rey nañ leen ci ay manifestation te loolee lépp nag dara du ci dëgg dara du ci yoon loolee nag moom Pape Alé Niang di jaajëfal ñi nga xamante ne bii nag ay doomi Sénégal lan féete foofee ca bitim réew te dem wane seen bopp ca buntub CPI euh, euh, di Cour pénale internationale dialogue bi nga xamante ne bi nag moom Macky Sall woote woon na ko te Khalifa Sall dem ca nag Pape Alé Niang ba tey mi ngi nangul ki nga xam moo di Khalifa ak teewam foofee ca dialogue boo bële waaye nag dialogue ba nag nee na moom dialogue dialogue la ko tuddee dialogue boobee nag mooy feuille de route boo xamante ne bii ni euh, fankastal ki nga xamante ne bi moo di Ousmane Sonko rek moo tax nag nit ña daja fa nee na nag moom d'accord na ku nekk nag mën a dem teew ci dialogue boo bële waaye nag li nga xamante ne bii moom lañ fay romandaat ak li nga xamante ne moom la ca xel di tey muy ki nga ne moo di Ousmane Sonko ñu daal di koy naxasal loolee nag ki yëkk ne kàddu di Pape Alé